tournée bi nag jeex na démb. waaw ah, sëñ bi. Eh, wax na ci mbiru caisse ah, waaw te une première ma dégg ko sax mu communiqué ci mu prononcé aussi sans avancer surtout depuis 2017. xëy na joxewul ay détails. Mhm. mais delsu na ci li nga xam te ni moom mooy euh, mooy mooy mooy mooy contenu politique bi te mooy bon liquidation Euh, d'un candidat à l'élection présidentielle de 2019 la woon parce que moom bokk na ci potentiel candidat yi comme li dal ni Ousmane Sonko. yaa ngi seetlu fi mu ko waxee. Oh. xam mu dooree ci Ndoukoumane. Mhm. ci lañ ko interpellé woon. Mhm. ci wàllu justice affaire accord donc bi jeexul. jeexagul d' accord d' accord parce que période boobu mu ngi woon ci campagne. léegi mu ngi ci ay mu dellu si waat. waaw tuddee si lay doog joxe ay avis kii wam si si kii affaire caisse d'avance. waaw xam nga xalifa euh, Sall lii nit ñi xamul ci moom mooy c'est un homme d'expérience politique de plus de presque trente ans li mu def da koy peser firndewaat na ko firndewaat na ko lu muy def da koy natt amul mm-hmm. benn geste am wala communication boo xam ne c'est à négliger c'est un chef d'état même boo koy xool parce que boo xoolee ni muy doxalee nga xam ne kii incarne na cette leadership d'être un président de la République. xalifa du ay parolam sax mais ay gestam si boppam dañuy communiquer. Euh, bi ci des aussi mooy boo xoolee euh, dama bëggoon a ñëw d'abord ci discours bi ah. Mhm. d'abord wax na ci côté euh, caisse d'avance bi nga xam ne nee na dañ ko doon tuumaal caisse d'avance bi mooy li nga tudd léegi ci ci ci côté nu ñu tax maire bu Thiaroye bi. Mhm. parce que ñi ñoom à part le président de la République seul. Euh, la la la ville de Dakar ñoom ñu am caisse noire. Mhm. ñi ci des ñëpp dañuy am caisse sociale. kees boo xam ne maire yi fi jot aw yëpp bénéficié wu nañ ci caisse d'avance boobu noonu loolu kenn mosu leen si topp loolu avocat wu Khalifa Sall yi wax nañ ko ba sonn mhm. Khalifa Sall ci boppam première euh, déclaration bi mu ci defoon mooy bi muy def point de presse am boobu point de presse bu siiw boobu wax na ko ci leeral na ko ci donc ay meew ak yooyu la ci jëndoon pour jox ko xale yi pour jox ko population bi nekkul lenn lu mu def ci poosam. ak amoon impact ci xale yi doon jàngi je vous dis Barthélémy Dias moo ngi def. mais xale yi ñu doon yee ñuy bañ a jàngi. ba léegi à bi tax na xale yi koo si fëgg mu jóg sangu dem jàngi. ba léegi nii muy am. ba léegi nii mairie yi ngi koy def ba léegi nii ville ñu ngi def ay dons. ñu ngi def ay ay ay ay léegi nag li des mooy après loolu arrêté nañ ko tëj nañ ko raje nañ ko di dugalaat nañ ko ci fichier bi d'après moom ni ñu ko gisee mu wax mu war a joué waat un grand rôle ci élection présidentielle di jow mais nañu xool Khalifa Sall bi mu génnee prison presque ba 2022 deful benn activité politique mhm. dafa génnoon sax Sénégal dañ mhm. comprendre Yewwi Askan bi moo taxaat euh, Khalifa Sall nekkaat sur le terrain politique defaat amaat occasion de tourner presque le Sénégal def le tour du Sénégal yeewaat peut-être euh, ses responsables yi nga xam ne ñoo ngi doon nelaw sa base politique c'est-à-dire à partir de mhm. yeewee askan bi Khalifa Sall yeewuwaat na Khalifa Sall dundaat na politiquement donc ñu dem ci ay élection tey bu fekkoon na taxawu Sénégal amutoon doole di bu di amutoon doole laa wax de mhm. ci assemblée nationale depuis bi ñu tëjee Khalifa Sall mais bi mu génnee en 2022 Khalifa Sall commencé waat na dund politiquement parce que am na ay députés suffisamment de députés au niveau de l'Assemblée nationale tey jii nii bu ko neexoon du wuti ji signature mhm. donc à euh, de son nombre de députés yu mu am assemblée mën na parrainer wu mhm. deuxièmement mooy base politique am commencé na judduwaat boo xoolee bi mu anticiper tournée mi kenn xamul kañ la loolu yëpp day wan ne mu ngi commencé waat dund politiquement ensuite nga boole ci nag li xew mu amaat d'autres yoo xam ne commencé na am ci moom muy le problème avec euh, Yewwi Askan voilà donc yeewi bi wax na ci dialogue national bi également voilà voilà mhm. yeewi askan bi d' abord muy plateforme boo xamante ni de par son expérience moom moo ko xalaat waaw moo ko xalaat waxtaan ceeg Sonko mhm. soog ko yóbbul Serigne Moustapha mhm. procédure bi noonu la demee moom moo xalaat xalaat bi loolu tax des fois ngay dégg buy wax mu dóor ci table bi ne yeewi askan bi sama yeewi askan bi bien parce que idée bi ci man la jógee man maa xalaat ne il nous faut une force vive de la nation boo xam ne daf day faire face mais politique force politique bu faire face euh, au président de la république bokkut ak force vive de la nation nga xam ne mooy F24. looloo tax na génne nañ taxawu biir yeewi c'est paradoxal. voilà donc loolu muy benn mais nag xam nga dans dans un pays démocratique ak euh, condition euh, de liberté yi am dans les dans les dans les organisations politiques mm-hmm. liberté ak position yi dañ koy cerner maanaam boo xasee ba créer newut na loo moom la parce que defee wuñ ko ci sa tur mm-hmm. comprendre nga boo xoolee yeewi askan bu amul këyit bu officiel mais des fois manifestation yi am dañuy jël benn ci partie de base yi seen seen licence moom la ñuy déposer pour mën a def manifestation. Mm-hmm. kon nekkul loo xamante ne nii tey jii euh, Khalifa Sall mënul taxaw ne Yewwi maa ko moom parce que kayit bii mooy firnde na maa ko moom li mu mën a wax rek mooy maa ko xalaat maa ko initier taxawal ko wala partie yëpp ñëw ñu ñu doxal. li ci des aussi mooy dafa ci loolu nag à partir de la dafa am cër buñ ko ci war a jox. ñu xam ne donc expérience am joué na ko foofu parce que xam na ne actuellement ni Ousmane Sonko doon def bu ko continuer woon so euh, loolu sonalul Macky Sall Ousmane Sonko def nay déclaration de deux heures temps ba sonn mais li li Yewwi Askan bi réussir mu mënu ko woon réussir parce que Yewwi c'est toute une euh, force de leader de parti politique donc bu nu na bu génn doon am Ousmane Sonko donc bu doon génn peut-être du am yenn force yi mais Yewwi bu ñu génnee da gis mobilisation bi muy jur donc def na effet bu baax xalaat boobu nga xam ne def na ko expérience am moo mën a yëngal nguur ensuite bi ñu demee ba jafe-jafe commencé am jafe-jafe bi li ko indi mooy sa position ci cadre euh, par euh, kii bi nu mu tudd sax dialogue bi mm-hmm. mais dialogue bi Euh, xëy na après am na yeneen kàddu yu ci jub trahison ay traître terme yooyu nga xam ne yàgg nañ ko dégg ci ëttu politique mais dialogue bi nag il été très honnête. voilà am leen ne day dem voilà loolu yàgg na ko wax yàgg na wax ne damay dem bi ñu demee parce que moom benn objectif la ci amoon mooy mu bokk ci élection présidentielle yi comprendre nga moo tax ci biir discours bi tey boo dégloo li mu wax daf ne tey dialogue boobu moo tax ma bëgg bokk ci élection yi moo tax ñu bëri ñu amoon désespoir ci man te commencé nañu am yaakaar ci man parce que bu ñu xoolee potentiel candidat yi taxaw mm. maa ci ëpp maa fi gën a baax le profil dem ba sax ba naan cinquième président de la république man lay doon waaw na ko de waaw parce que maanaam li tax muy wax loolu mooy sénégalais dafa am profil yu bëri yu ñuy xoolee mm-hmm. am koo xamante ni bu ñu demee ba sës gis rek fi nekk nii nii nii ñu xool candidat yi danañ xool dañuy xam ne kii moo fi tane mooy li ñu dal ci Macky Sall en 2012 moo fa tane moo fi sësoon. Mhm. maa fi sës dañu dem songandoor pour mu daan nguur gi parce que am na benn moment soxlaatu bi dara ci. Ablaye Wade donc actuellement ñëpp xam ne ne a bëri ñu débarrassé wu avec ce gouvernement. ba pare ñu trouvé benn consensus mooy bu ñu demee deuxième tour ku mënta dem deuxième tour ak Ablaye Wade dañu ànd ak yow. consensus boobu am na ci biir Yewwi Askan bi mais gëmoo ñu pratiqué ko. Yewwi wax nañu ne lu ñu mën a pratiquer ah mais duñ ko pratiquer parce que jafe-jafe yi dafa ëpp liñ fi mu toll nii dafa maam dafa dem ba jéggi sax affaire politique. dafa nekk des affaires lu ñu mën a pratiquer la. mais xam nga tey. politiquement li xew parce que bi góobu ma ne moom mooy dem di àndali ji ak. waa Benno Bokk Yaakaar loolu ah, moom ah. xalaatuma ko. waaw loolu lay sa avis la. nga ne ma Bart mën na génn dem. mais attends xam nga adversité politique dem na ba benn moment. Mhm. bu fekkee ñaar dañu taxaw. te kii yaa ngi xuloog moom mais maam xalifa da di nit koo xamante ne dafa da dafa gëm ay vertu waaw loolu moom dëgg la moom kenn du ko wetti bu naroon ànd ak bennoo def na ko ca ba PS xam nga bokk gi mbokk ci parrainage bi expérience politique aussi foofu nga fay jàngee ba tey xam na ni tout ou tard ces problèmes kenn du ko régler ci wàllu justice kenn du ko régler ci wàllu defante dañ koy régler par dialogue mu def ko et il réussi am nañu opté woon beneen façon façon boobu ba tey mënuñ ci am solution donc l'expérience fait la différence mm-hmm. c'est pourquoi nga dégg ci biir discours boo xoolee ci journal bi def ne <laughs> non Khalifa Sall en tout cas ma man de xam nga des fois personnellement donc ça n'a rien à voir ak analyse yi mais personnellement mm-hmm. man en tant que homme politique je l'estime beaucoup. Mhm. ci façon de faire am. merci beaucoup mais mais mais mais communication bu ànd ak yar bi nga xamante ne moom lañ koy. xam nga xam nga le xalif général des Mourides. Mhm. bokk na ci li mu ko wax dernière fois bi mu ko gisee ne ko nitu jàmm nga da ngay ree rek. xam nga lan la ko ci tontu xam nga lan la ko tontu def na ko wàllu jàmm bu fekkoon ne dafa jar ma raam sax dama koy def mais mais en politique. Mhm. gars yi bu ñu bokkul des positions politiques ils vont critiquer ils vont faire. diviser pour mieux régner pour avoir beaucoup plus de sympathie ci ñeneen ñi donc forme de combat yi mën na bañ a bokk. mais l'objectif reste le même. mën nga politique sans pour autant nga heurter nit ki. waaw mais bon léegi nag Khalifa Sall <laughs> heurtewul moom xuloowul xeexul dafa war a bokk ci élection présidentielle yi. mu des nag la cas avec euh, Yewwi mhm. wax na bii de Yewwi askan bi ne c'est pas à Yewwi mu koy légitimer euh, candidature am waaw wala déedéet c'est-à-dire du ñoom ñoo koy wax. demal nga poser sa candidature du ñoom ñooy wax ne da war a toog parce que sax dem na benn moment ci xeex bi bi mu amee dafa dem ba benn moment mu wax ne ñi suma leen bàyyee sama bopp du ñoom ñoo may xeexal pour ma nekk candidat te pour pourtant li muy wax d'une côté. dëgg la dëgg la neexut a dégg amul fenn benn forme de combat bu yeew yi def auparavant oui auparavant oui. mais teg jéego pour xalifa bokk. voilà mais loo xamante nii def nañ ko ci communication taxawaay pour que moom mu bokk ci élection yi gisuñu ko pour mais nag bu ñu xoolee euh, temps yële passé franchement Yewwi dañoo miser wu trop trop trop trop trop ci Ousmane Sonko te jusqu'à présent même jusqu'à présent c'est-à-dire que le nombre de communiqués boo ko doon compter yi ñu def ci Sonko defuñ ko ci Khalifa Sall et pourtant ils ont tous des problèmes Khalifa Sall a un problème Sonko a un problème sur une question. de de justice gis naa ne bu bu deuxième tour amee dinañ dinañ respecter seen valeur non loolu loolu c'est valeur actuellement mën na am. Euh, Khalifa Sall xëy na peut-être moom moo leen ëpp expérience politique aussi xol bi mu am peut-être ñeneen ñi amuñu ko. Mm-hmm. donc mën na këral yëpp mën na am mais ci yenn position yi parce que Macky Sall mi ñuy wax ak yéen. nag jeunesse jeunesse bu bees dañoo dañoo judd de. ñoom Macky Sall ñuy wax ni en 2012 gëmuñu ay affaire de expérience ak affaire de lool de. mais jeunesse bi bëgg rek la topp mais en général tamit jeunesse bi Sénégal ñu ci mm-hmm. bëri seen leader la topp. c'est très intéressant bëgg-bëgg rek. seen seen léegi nag seen mm-hmm. leader yooyu bu jëlee yenn position yi dañ koy accompagner en 2012 Macky ñuy wax ñii kii nii saa ca nguur ga la bokkoon mm-hmm. ba mu génnee am nañu ko jéppi woon bëgguñu woon sax jege ko bay jaar nii gars yi jaar nii mais teewul bu ñu demee deuxième tour dañu gëmm dëxlu soutenir ko mm-hmm. loolu day wane ne donc loolu loolu c'est dans l'avenir ba ci des dafa wax ne ci cadre Yewwi Askan bi poste conférence des leaders euh, daf ko séddee cest à moom moo toog xalaat ne jot na pour mu joxe lenga yi mu joxe ko. mais séddee na ko avant coow li am. exactement mooy bi ko Habib Sy di géré bien sûr na ko deux mois trois mois problème bi soog am. Mhm. te problème bi problème de position la. Euh, am na ñu mu wala am na ñoo xamante ne nii euh, arrangé na leen. Mhm. te jusqu'à présent je pense pas que mën na indil ay jafe-jafe. Khalifa Sall parce que tam vécu na ci dégg na ci gis na ci mais li mu gis li mu taxawee fi mu toll nii mooy. jëf euh, yi sax carte gi sax boo moytul moom mu mu mujjee nekk nag. dernier espoir. mais nag tàkkale na leen de. waaw tàkkale na waa yeewi askan wi. mais mais mais na Sonko. waaw lijjandiwul sax Sonko waxu ko sax tudd ko sax. xam nga loolu yëpp adversité politique la. Mhm. mooy Sonko mu ngi ci jafe-jafe mais gis nga Barthélémy Dias def communication. gis pourtant ça ne demandait pas à ce que ñu nekk ensemble pour ñu def communication parce que gis nañ fi combien de fois Barthélémy génn sans nekk ci wetu Sonko may def ci communication Khalifa Sall la même chose mm. mais fi tol nii kenn ku nekk li la doy mooy sa sa sa sa yëfi bopp. mais nag est-ce que du liñ ko écarté ci ci élection yi moo tax parce qu'il n'est pas candidat donc moom instant yi moo tax peut-être mu def focus. waaw moom moom fi mu toll nii li mooy wax rek li ko doy mooy. mu mu lijjantiwaat base politique bi candidature am bi mm-hmm. lijjanti affaire yi mu gaaw bi ci des mooy diggante ak Ousmane Sonko nag moom dernière sortie bu mujjee def ci lim ñu wax c'est des politiques nag ci lim ñu wax mooy il n'a pas de problème avec la personne de Sonko parce que on peut avoir des waaw waaw ils peuvent avoir peut-être exemple des des ci côté position politique mais ñu bokk objectif bokk yéene bokk nekk ay nit di jëflante donte nag fi mu toll nii kenn mënu la waatal na ñu ngi jokkoo mais xam naa ne daal bu doon bu doon seede dafa am seede man bu ma doon seede bu naturel ci affaire politique ci cadre xalifa Sall dama naa il n'a pas de même il n'a même pas ce problème là dem fekki Ousmane sonk même kaso seeti yu ko bu ko deful sax di ko nëbbu parce que on connaît Khalifa Sall ci côté boobu donte nag politique dana dem ba nit ñi dañ xol la ñuy waxee xol la ñuy xoolee xol. position la ñuy xoolee moom la ñuy gisee moom la ñuy man du ma xoolee loolu du ma analyser noonu c'est euh, je vous donne un exemple euh, Seydou Moustapha dernière déclaration yi mu def ci Khalifa Sall c'est c'est pas avantageux ci moom. pourtant pourtant gàmmu gi dem na. site mhm. wu ko sax mais tey wóor na ma ne bu conférence amaatoon mu dem pour wax la ne la. mais gàmmu gi da ko ignorer carrément waaw carrément parce que ah euh, peut-être am na yeneen yu ñu mën a expliquer yoo xamante ni c'est des affaires ci cadre positionnement ak peut-être comportement ak lim mu waxoon ci côté dialogue bi que ni demeewul ci turu Yewwi jëlul euh, newul lu Yewwi d'accord moom it tamit euh, responsable la ci biir Yewwi Askan bi donc maanaam affaire politique pour vous dire que mën nañu am ay divergence de position politique ou d'idées politiques mais ci cadre relation humaine ñu nekk des des des personnes responsables dem seeti nit ku nekk ci jafe-jafe waxal nit ki ci ay tolof tolofam wàññi la dara teewul da ngay nekk euh, leader bi nga doon xëcc li nga doon mais daal li ma gëm ba gëm mooy euh, le situation commence à tourner ci biir benn bokk yaakaar ci biir ëttu politique bi te fa ñuy mujj ji nag luy bette lay doon on sait pas jusqu'à présent quels seront les maximums de candidats qui seront officialisés xamaguñu ko mais espérons peut-être que Khalifa Sall génne ci Khalifa Sall bu génnee ñan la nar a jaakaar lool est-ce que ñooñu doy nañu sénégalais yi su boobaa bu fekkee doyuñ leen boo moytu ñoom ñëpp dañuy dem sotali ji Khalifa Sall lu leer laa lay wax ni c'est-à-dire bu ñu après parrainage bi bu fekkee ne par exemple je donne exemple Khalifa Sall génn ak ñoo xam ne amuñ expérience politique mënuñ jiite ngi mais par chance génne nañ ci parrainage bi contre Amadou Ba mi nga xamante ni peut-être sénégalais yu bëri mën nañu ne jàpp ñu dinañ ko boteel te bu baax dañuy dañuy miser wu ci Khalifa. da ngay da ngay xool ci élection yi mujjee nga xamante ne sénégalais yi loolooy wane ne am nañ sympathie affaire allié yi ngay dégg nii ci parti politique yi moom danga ko ci amagum junj la boo xam ne ci fan yi ñu jëm mën na amaat yeneen i parti politique ak yeneen i leader yoo xam ne bu ñu xoolee configuration attends boo xoolee mm. configuration politique bi parce que am na ñoo xam ne dañu ne tekk toog di xool di mm-hmm. xaar ñu officialiser candidat yi pour ñu xool fan la ñuy fan la ñuy far kan la ñuy dem jàppale ko ci élection yi nga boole ñooñu ma lay wax noonu bokkuñ ci élection yi de. c'est des mouvements politiques c'est de la société civile c'est et cetera en même temps aussi ñii bokk ci élection yi mooy deux cent et quelques euh, candidats yi ak seen i mouvement ak bu bu ñu leen rek ñenn ñi ñuy recalé après dañuy rallier ci yenn ci ay leaders yi nga xam ne repêché nañu leen ci élection yi di ñëw. Mm-hmm. pour vous dire que euh, il peut avoir de, euh, de très grand sens ci élection présidentielle yi di ñëw restons voir l'avenir ba la ñuy wax. Ah, man daa mel damaa pare. pare <laughs> moo amul noo yaataleewul actualité bi. Euh, euh, léegi nag trahison bi ñu wax ak traître bi ñu wax damaa jàpp ne c'est des termes yu ñu mën a éviter nag waaw. waaw parce que l'avenir avenir la kenn xamul avenir la kenn avenir la kenn xamul nu muy demee. Mhm. abi luñ bokk bokk service bu ñu xulooyee. ëllëg mën nga ma servir dara. jë euh, ñu baal ma entreprise sama yaay dafa mos am benn problème. ma mm-hmm. jugee bi ma jugee benn dëkk ñëw. Mm-hmm. mun ma yow rek laa doon xalaat xam la laa ko ci tegal. Mm-hmm. man ne ko yow rek laa doon xalaat mbaa waxoo luy tax ëllëg boo xoolee ki nga doon jëflanteel. am kersa. munuma déedéet man ne ko alhamdulilah parce que nawle daa fort nawle dafa fort te l'avenir kenn mënu la ko justifier. ki nga amal tey problème suba mën na la servir donc restons Euh, nu ñu koy wax sax raisonnable te la raison nag exige une certaine conscience et une certaine discipline